ñu ngi nuyu ñëpp di jiital ci nuyoo bi kilifa jotaay bi di sëriñ Cheikh Baba Guissé di ko dalal di ko jox wàccuwaayam di ci teg tamit sunu kilifa ñun ñëpp nga xam ne tey lii buñ demee ba am fit di ko def ñoom seeni jëmm moo tax muy sëñ Ahmed Sall di sunu kilifa moom it bokk ci sëñ Baara im na sëñ Touba di ko ziyaare bu baax di ko jox wàcc waayam di nuyu tamit sëñ Abdoulahi Mbacke mi nga xam ne moom lañu fas yéene ànd ak jotaay bi muy leer ci sëñ Cheikh Jorel mi nga xam ne moo yor Mbacke bari di ko nuyu bu baax moom it di fàttali rek ne tamit sëñ Fallou Mbacke di euh, jëwriñ ci ñun ci liggéeyu Mbacke bari bi ndax moom mooy taawu sëñ Cheikh Jorel moom mi ngi waaj a ñëw ci jotaay bi mi ngi fi ak ñi nga xam ne ñoom la ànd ak ci liggéey bi ñoom sëñ maam Thierno ak mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo jóge Touba ngir tey fas yéene dundal bis bi kon ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit suñu jëwriñu sëñ Moustapha Ndiaye nga xam ne mooy sunu kilifa ci daayira bi bu baax ñi nga xam ne ñoo nekk ci daayira ak mbokki yi nga xam ne tamit dañoo nekk ak ñoom fii di liggéeyal sëriñ Touba ñi ci jiitu muy waa kër sëñ Basiiru Mbàkke Poroxaan sëñ Xaadim ñang jiite ko ak ñoom sëñ Ahmed ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu mbokki taalibe yi sunu mbokki étudiants yi nga xam ne dañoo nekkandoo ci barab bi di fi utandoo xam-xam waaye tamit di fi liggéeyandoo sëriñ Touba ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax sëñ Xaadim Siise tamit moom it nekk suñu jëwriñ moom it mi ngi fii ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit imam Mor Sakho nekk imaam daara moom it ñëw na ci jotaay bi di nuyu tamit magi taalibe yi nga xam ne ñu ngi fi ku ci mel ne sëñ Mbacke Ndiaye ak magi taalibe yëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ci jotaay bi di fàttali tamit sëñ Mourtala Bousso ñëw na léegi ak euh, sëñ Mourtala bu sëñ Thierno buso bu tuubaa ñëw na léegi ànd ak sëriñ Saliou Bousso ak sëriñ Xaadim Bousso ñoom tamit fas yéene nañoo euh, ànd ak ñun jotaay bi comme waxtu wi daf ñoo tënk nag daanaka du ñu sori ndax comme niñ ko xamee rek daanaka dañoo nekk ci liggéey bu am solo tey te liggéey bi ñu am ci ndigalu sëriñ Cheikh Jorel muy fexe nuñ gën a mën a yaatalee dëkk bi nga xam ne mooy Mbàkke bari Jolof di dëkk bi nga xam ne tey ci histoire yoonu murit munoo koo tudd munoo wax histoire murit te doo ko tudd ndax ku nekk xam na ne Serigne Touba tey li mu am e, lépp ci lu baax wala lu ñu xam moom moo wax ni maanaam bis boobu la ko am muy bisu tukki bi sababu aybati an allaha arada ala an ala min wujaa wan akoonu shafian li xew mi wan akoonu xaadiman fi daw mi moo ko wax la motif de mon départ est que Dieu a faire de moi l'intercesseur de mes concitoyens et le serviteur éternel du prophète loolu sëñ Tuubaa moo ko wax kon lépp loo xam ne tey gis nañ ko rek ci bis boobu la ko am te bis boobu la point de départ comme ñu ko xamee Mbàkke Bari la muy Mbàkke Bari Jolof kon dëkk la bu am taxawaay dëkk la bu am histoire ci yoon wi tey nag ñun ñu féete foofu sëriñ bi jox ñu ci ndigal ngir ñu jéem ci wane sunu Pastef wala wane ci wane ci sunu sunu yéene waaye xam nañ ne mënuñ ko sax mënuñoo wane Mbàkke Bari ndax fu Sëriñ Tuubaa def ay weer def fa juróomi weer bind fa xasida ba la fa xew lépp xew fa yaakaar naa ne dëkk boobu noonu ku ciy jéem a dox rek sëriñ bi moo la bëgg dimbale waaye maanaam kàttan gi day day xaw a néew kon loolee lañ waajoon ngir sëñ Abdou dina ñëw defal ñu benn euh, présentation bu ndaw rek ci dëkk bi tënkal ñu ko euh, ñu xam jëmmi dëkk bi fan la féete ak njariñu dëkk bi bu ñu jugee ci loolu tamit dinañ wax tamit dëkk ba di Mbàkke Baari Jolof sëñ bi nan la fa nekkee woon ak mag ñi xam ne ñoom la fa nekk woon ak ña ko fa fekk loolu lépp bëgg nañ ko tënk ci kàddu yu gàtt bu ñu jugee ci loolu nag comme dañu nekk ci temple du savoir am suñu ay professeurs yoo xam ne ñu ngi ci jotaay bi am tamit ay Euh, mbokki étudiants yoo xam ne tamit ñu ngi ci jotaay bi te ñenn nañu dégguñ maanaam kàllaama yi kocc sëñ Ahmed fexe nu mu koy tënkee rek ci nasaraan ngir ñooñu mën a jëriñu ci lu ñu wax suñ beneen mbokki taalibe bëggoon na tënk anglais ci loolu waaye jotaay bi moo ñu ko dut may waaye bu ñu ko defee ci français rek dana mel ni ni liñ ci bëggoon lépp dinañ ko am kon duñu guddal dañuy jox sëñ Abdou rek di sëñ Abdoulahi Mbacke comme niñ ko waxee di suñu mu tàmbali ci wet googu bu ñu noppee sëñ Ahmed Sall moom dina tëj kàddu yi ci ci tënk ko bu ñu jugee ci loolu nag ñi nga xam ne tey ñoo jugee ba Touba di sëñ Fallou ak ñam ñamu ànd ak fas yéene nañu nag defal panel bi nga xam ne moo ñu dajale fii tey kon ñu ngi jégalu waat bu baax ci kàddu yi sëñ Abdou bisimilah.